gis nañ bu baax a baax li nga xamante moom moo di levée de son immunité parlementaire bi nga xamante ni am na d'ailleurs lui-même l'a dénoncé parce que jàpp na ne du répondre ji à la justice parce que tout simplement euh, amul ci yaakaar tey gis na ne également assemblée respecté wuñ procédure bi maanaam ci question x baa nga fa ba tey posé équation il y a des membres qui ont démissionné qui ont eu à démissionner ci li nga xam ne moom moo di commission bi euh, commission ad hoc bi parce que gis nañ ni il y a X qui a été visé et que cet X ne figure pas ci la liste des parlementaires et ils ont également raison quelque part ci loolu maintenant man aussi li ma ci jàngat mooy ci côté boobu jàpp naa ne bu fekkente ni rek assemblée nationale nam ko nañ ko xamee lañ ko xamee ba tey mooy wax dëgg fa yàlla il y une majorité présidentielle il l'opposition et les non-inscrits te ku nekk xam ne ni tout ce qui a été proposé au niveau de l'Assemblée nationale moo xam immunité parlementaire moo xam lu mu mën di doon ça passe comme lettre à la poste fallait s'y attendre moo tax d'ailleurs tey jii xëy nañu lever immunité parlementaire mujjul fenn dañ koy jébbale donc le Ousmane Sonko le député Ousmane Sonko est livré maintenant au juge pour mu càmbar ay mbiram maintenant li ñu war a xalaat foofu mooy assemblée nationale bi war nañ koo xalaat bu baax a baax a baax parce que fekkente ni da ngay wut immunité te bu fa majorité boo nekkee day passé amul sens kon immunité parlementaire n'a pas sa raison d'être amatul njëriñ amul njëriñ beneen bi mooy aussi il faut que ñu joxaat image bi assemblée nationale wala am parce que c'est le lieu où on discute les enjeux du pays où on doit contrôler l'action du gouvernement dans cette situation de pandémie, dans ce contexte secoué, euh, dans ce contexte de pandémie, le pays, le monde qui est secoué par une maladie, on a du mal à trouver des remèdes, des solutions. On aurait pu attendre quand même que, que le pouvoir législatif joue pleinement son rôle sur des questions prioritaires qu'aujourd'hui qu'on s'attarde sur des questions euh, ça n'a rien à voir avec les attentes du peuple. Et il est temps qu'on reconstruise, qu'on fasse une déconstruction qu'on fasse également, euh, qu'on repense notre manière de gouverner de contrôler de fair également euh, pour que Sénégal mën a nekk su les rampes du développement parce que aujourd'hui on a vraiment beaucoup de retard on s'attarde sur des dossiers euh, politico-judiciaires de dossiers euh, yoo xam ne c'est des affaires privées qui son maintenant euh, libre au niveau de la place publique Sénégal nag war nañu xalaat bu baax a baax naka la ñuy doxalee penc mi ñi fa nekk dañu leen fa tabb pour que ñu teewal fa askan bi mais malheureusement que on a des députés ki euh, s'agenouille ñu sukk ci kanamu ay njiitu réew sukk ci kanamu maay député président Macky Sall réew mi loolu ko yàq géwalu Macky Sall woykatu Macky Sall nangamu Macky Sall du loolu la ñu président fa lañ ko pour ay partisans de li moom waxoon na ko est-ce qu'il l'a respecter la partie avant le la le pays la patrie avant le parti Mais si aujourd'hui des députés se signalent, mais malheureusement c'est le mode de scrutin qui doit être changé. Fait qu'un député bi dañ ko tabb au niveau de la liste nationale président toog ci siège Franck Laye wéeru eh jox ma tànnal ma diw mais <laughs> kooku ku fay teewal président dafa teewal am na fulla mais le député qui est issu d'une liste départementale qui s'est battu rayante xam jafe-jafe yi foog nga lemi di dund a jëme gi wala war nga jokkul loo wala feneen boobaa bu ñëw ba ci pénc bi dina xam dëgg-dëgg ban taxawaay la fa war a am mais image yu ñuy gis ay korpañ ay dorant ay xëccoo ay xeex ay nangam ay ay insultes des comportement qui ne dignent pas d'un député d'un parlementaire c'est vraiment une image qui ne colle pas à la aux bonnes valeurs vraiment de notre démocratie de notre pays il est temps que la donne doit changer